jërë ngeen jëf ami téléspectateur people 221 yi ñu nuyu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte ci jàkkaarloo waat ak yéen di nuyu képp koo xam ne yaa ngi bàyyi say di nuy suñu kilifa aada yi ak suñu kilifa diine yi tey nag dañuy sawar ci am waxtaan ak euh, moom parce que muy koo xam ne kenn dootu ko présenté ci suñu kër gi waaye kenn dootu ko présenté ci réew mi moom lañ fa séenee waxtaanal. kenn dootu ko présenté it ci digganteem ak Wally Seck mu di Ndiaye Rambo fas yéene si ak moom waxtaan li nga xamante ni moo jëm ci wàllu waaye nag li nga xam ne moo jëm ci wàllu Wally Seck aussi tamit Ndiaye dañ lay bàyyi nga nuyoo. waaw salaamaaleykum waa people 200. 21 21 fii moom presque mën naa ni sama kër la. dëgg la de. Hmm? Hmm. ñu ngi leen di sant di gërëm di la siyaare yow. Hmm, di siyaare sa caméraman. parce que nag yéen a ngi def am lu am solo ci people 221. ma bëgg nag seen kilifa bi encore fois. Mhm. mu gën leen a teg loxo parce que yéen. Mhm. ay wër. Mhm. di taataan. pour moom poosam diis. kon yéen it war ngeen bokk ci ñi poosam di diis. dangeen ngeen maa fekk nag ci benn bërëb. sama jigéen. sama doom baay. house of bitik fii nga xamante ni mooy Nord Foire dend ak ci studio bi mhm. tey nag man leen nag tey fii laa leen di dalal parce que mhm. house bu ngeen ko xoolee xam ni ah, waaw lu mhm. doy waar la macha allah xam naa après nag dinañ joxe numéro téléphone bi ah, bu leen ko dagg nag na ngeen ko ci boole non loolu loolu farata la vraiment <laughs> fi may njëkkee ana artiste bi kan la Wally waaw Wally nag nii nii nii may wax yow nii mu ngi nelaw parce que Euh, mu ngi woon studio ba sept heures. Mhm. instant bi mu ngi dallu. Mhm. Mhm. Euh, fi may njëkkee fan yi gis nañu réseaux sociaux yi. coow li nga xamante ni am na ci également muy sorte bi nga xam ne rakkam def na ko muy Mandiaye Seck. mais bala maa ñëw ci loolu damay bëgg ñu waxtaan ci wàllu promotion album bi. ak préparation bi. na naka naka ngeen ko dundee. waaw album bi nag xam nga génnagul. le 19 décembre. <laughs> waaw incha allahu rabbi benn mbir mu sew. rek lañ ci sànneegum mhm. mais fi mu mu ngi publicité boppam mhm. waaw fi mu album bi mhm. génnagul parce que benn tiddeuse bu ndaw lañ ci def rek mais ku ne xam na ni commencé na jaay boppam ah, léegi nag di wax sénégalais yi ñu xaar rek ndax ku déglu. incha allahu rabi di dégg même boo fàttee say nopp. di nga dégg ndax xol day dégg. gis nañ euh, aussi date yi aussi ni mu saturé. ak euh, temps ku ne xam na ni préparation album aussi tamit day jël temps. Mhm. Euh, naka ngeen koy naka ngeen ko doon waajee ci préparation bi. bëf waaw comme comme comme nag xam nga bépp artiste rek ah. Mhm. parce que nag xam nga bu fekkee yàlla dafa dogal nga gëj a génnee album. Mhm. te sénégalais yi. boole la ci ñi nga xamante ni dañ leen di déglu. Mhm. c'est normal. Mhm. boo waree togg nga waas jëndi normal. Mhm. nga xent ndox mi normal. su ko defee. boo sóoree boo yàqee nit ñu kontaan. surtout loolu am na solo la demee waaw. du ñàkk ni album bi am na ci loo xam ni comme ni nga ko senegalee déggee nga ko déggee am na ci loo xam ne jot nga ko dégg bi nga ko déggee euh, ndax mën nga ñu wax. niveau bi aussi tamit fi mu toll. Hmm, waaw xam nga nag loolu nag il faut mu bàyyi. Mhm. ba incha allah rabi mu génn. Mhm. Sénégalais yi découvrir ko seen bopp commenter ko seen bopp. Mhm. mais xam naa ni daal. ñu ngi ci feneen. ñu ngi ci leneen. ñu ngi ci ay yeneen. incha allah. mu ngi ci yeneen yooyu fa laay ñëw euh, du ñàkk ni aussi tamit euh, di jël ngeen ci ay matukaay ci wàllu album bi nga xam ne war na génn le 19 décembre pour pour bu génnee ñu jéem ko def comme ni ko nigériens yi di defee di ko di ko di ko jaayee noonu est-ce que côté staff bi yéen ngi pare ci loolu. waaw yooyu yëpp nag ñu ngi ci ñu ngi ciy waxtaan. Mm-hmm. ñu ngi ciy waxtaan. Mm-hmm. waaw di ko def bout à bout di ko def ndànk-ndànk rek. Mm-hmm. xam nga incha allah rabbi lépp lu nga xamante ni mat na ci rek. incha allahu rabi Sénégal yi dinañ xam ni nii la demee bu soobee yàlla. Mhm. ci album boobu noonu yan message parce que dañu gis Wally tey mu ñëw indi indi album boo xam ne comme comme dafa mel ni li Sénégalais yi di dund. coow li kaa ah, mu mel ni loolu la ñu gën a suivre parce que ci biir album bi mu ngi wax naan euh, faramaare ni nañu liggéey waaram daan nañu liggéey te wàññi coow li. Mhm. Euh, album bi yan thème nga ci gën a suivre. non waxul waxul rek waaram daan ah. mhm. wax na ko boppam wax na ko ñëpp. parce que nag dafa ëpp solo. coow lu bari. Mm-hmm. foofu la waxee rek ah. waaw maanaam loo xamante ni la euh, wax na ko boppam. Mm-hmm. wax na ma ko. wax na la ko wax na ko ñëpp. xam nga il faut parce que tamit xam nga dëkk. li koy li koy tax a dox. du wax. parce que da gis ki nga xamante ni yàlla dogal na sax. mu am hectare war a bay defe naa ni du wax mooy tax. li muy góob mu ñor. Mhm. comprendre nga liggéey koy waral. Mhm. foofu la Wally waxee dafa wax ni. liggéey moo dàq. Mhm. coow. ci biir coow loolu noonu laay ñëwee du ñàkk ni waali kenn xamu ko ci coow aussi mais chaque fois dañuy gis ñi nga xamante ni ñoo ko jege. ñoom rek la ñuy dégg ci ay détails ñoom rek la dégg ci ay coow. te moom am personne mosoo ko dégg moo fi def lii wala moo fi wax lii. waaw mais mais mais xam nga nag. kër goo gis am na maram ak biraan. <laughs> waaw mhm. xam nga comme que moom mi nga xamante ni yàlla def na ko muy ndeyu mbill mhm. te du dugg ci yenn détails yi mhm. kon xam nga ni way bi mu way noonu waxal na ko ñooñu tamit waaw loolu wàññi coow li te liggéey kon waxal na ko ñi ngay wax noonu c'est important tey euh, fi may ñëw sorte bi nga xamante ni frère am ba tey damay rek ci coow li frère am bii di Mandiaye Seck génn na def ko barki démb euh, naka nga bi ko déggee naka nga ko jàngatee dara rakkam la ñoom ñoo bokk hmm? seeni marraine duma ci xaw a concentré dama ne woon sax du ma ci wax. Mhm. parce que bu ma juumul man Ndiaye am na lu mu génnee lu bees. Mhm. xëy na looloo tax muy wax ak magam. Mhm. magam la waxal c'est pas méchant. ci loolu mu génnee noonu ñu koy laaj mu ni euh, man waali invité wu ko ci suma son moom moo jékki-jékki gis ma xam ne lii neex na mu sentir di boppam ñëwooy mais man invité wu ma ko. waaw man Ndiaye bu waxee loolu nan ko nan ko jàppale loolu rek loolu garaawul. loolu garaawul moom bu invité magam war na koo invité. bu ko magam invité war na ko invité. Mm-hmm. moom moom defe naa ni. Mm-hmm. benn son boobu ngeen gis. Mm-hmm. mais defe naa ni ay soirée waale yu bari. ay ay concert Wally yu bëri man Ndiaye mu ngi fa doon ñëw. Mm-hmm. Mm-hmm. moom xam naa nag Wally ko invité. Mm-hmm. yooyu garaawul ñoom ñoom moom seen yëpp ñoom it neen la. nu mu gën a rafet rek gën a baax dara dara nekku ci àdduna mu solo. tey ci wàllu musique man bu demee bay xaar euh, Wally jàppale ko di ko di ko teg loxo est-ce que loolu noonu tamit du du du du du nayifu ki nga xamante ni mooy ma Ndiaye. déedéet garaawul ah, dara nekku ci parce que diggante. mag ak rakk la. bu ko jàppalee war na koo jàppale bu ko jàppale war na koo jàppale te man xam naa ni mu ngi koy jàppale. moom mu ngi koy jàppale. parce que gis nga Wally Seck. Mhm. ak a bëgg ma Ndiaye. <laughs> barke Serigne lu ma xamul. Mhm. te ma Ndiaye bu ma déggee du dindi li ma wax. Mhm. parce que nag am na yoo xam ne man fekkee naa ko parce que man kër Wally Seck fa laa dëkk. fa laa dëkk. Hmm? waaw fa laa façon de parler la. maanaam dama bëgg a wax ni euh, lu bari fekk na ma fa. Mandiaye Seck waale da ko doon jël dugal dugal ci néegu biiram. Mhm. Mandiaye Seck. waaw parce que loolu du cadre wax mais il fallait que nga développer loolu pour sénégalais yi ñi nga xam ne mënuñoo jot ci waali mhm. te njaaram boobu bu taxawee wax dañ njaaykat li mu wax am na donc yooyu mu ngeen di ay réeroo aussi tamit war nga leeral nit ñi. non non man jàpp ma ni réeroo la. Mhm. Mandiaye def na sorteem. wax loolu du affaire bu. mais daal xam naa ni. Mandiaye daal ni peut-être am na lu ko metti ci magam. Mm-hmm. mën na am. Mm-hmm. parce que nag dañuy waxante dëgg. ndëggam mm-hmm. bëjëg làmmañ ñooy jékki-jékki di mattante ba benn bi di nàcc. te après ñoom ñooy àndaat gérer li ñuy gérer. c'est pas méchant. magam la moom rakkam la wax na nan jàppee wax ji xam nga benn affaire bu léger parce que man jàpp man lu garaaw la parce que xam naa ni Wally Seck ndeyu mbili bi bu ko déggee du ko def dara. parce que xam na moom. fi mu teg ma njaay. mais loolu noonu jàppoon ni mënul déstabiliser ki nga xamante ni mooy Wally. Hmm, déstabiliser yaakaaruma ko nag parce que nag xam nga Wally Seck nag <laughs> defe naa ni. Mhm. Euh, lim dégg looloo ci gën a ndaw nag ah. Mhm. Wally dégg na lu ne nag. Mhm. te Wally lim traversé. ay wax. wax yii nii munu ko munu ko munu ko munu ko déstabiliser. Wally fi mu toll ci ruqam. di liggéey loo xamante ni. giñ naa ko Seydina Mohamed bu génnee. Hmm. Sénégalais yi ñu bëree bëri bëri dinañ xam ni. nga hmm. <laughs> liggéey na. mais mais mais mais mais mais Ndiaye question bi mën naa ko laajal sama bopp. Hmm. mais lan mooy problème bi ba tey à chaque fois dangay gis wàllu bi waaj génnee dara kenn ci faramaare ni njëkkee nañ ci Kéba Seck keneen ak keneen dañuy génn à chaque fois di ko attaqué lan mooy problème bi waale yi. waaw waale yi waale yi bindee xanaa xamoo ku bindoo nit tama. ñu tëggalee tama. waale xam nga famille bu fekkee yàlla dafa dogal nga nekk ci. Mhm. du danga cee mag. Mhm. mais yàlla bokk ci ñim jiital. Mhm. c'est normal yenn wax yi di dal. mais ci ki muy dal moom mën na ko gérer. loolu loolu du wax bu garaaw lu garaaw loolu. garaaw la te aussi man li ma ci jaaxal mooy souvent li ñuy wax des fois euh, aussi tamit est Euh, ki nga xamante ne mooy sunu yaay jaaga. Mm-hmm. xale yi des fois aussi tamit est-ce que duñ koy duñ koy duñ koy sóoraale ci wax ji parce que kooku xam-xam ko li muy def ci social xam ko ni muy jàppale euh, nit ñi aussi buñ demee bay teg deram deru doomam ci yenn yi est-ce que duñ ko sóoraale aussi. waaw jaaga nag yaayu ñëpp la. <laughs> ni ko gisee noonu. jaaga mm-hmm. moom. jaaga mm-hmm. moom boo xoolee cent pour cent sax ko trop. moom daa jur Wally mais xam na ni moomu. parce que jaaga. Mm-hmm. dafa bàyyi ak sénégalais yi waal yi mm-hmm. jaaga yaayu ñëpp la mm-hmm. moom wax yooyu lu bari du ko sonal parce que nag moom mu ngi ci andi micro bi mu ngi mu ngi jàppale mu ngi jàppale néew du doole yi mu ngi ci margu yi mu ngi ci hôpitaux yi mu ngi mu ngi extra extra d'accord boo ko fekkee rek mu toog rek yaa ngi ko fekk mu ngi toog ci sijaadaam yor kurusam waaw lu bari du ci melewu parce que dafa xam ni ay xale lan mhm. ay xale lan te xale bu tollee ci jeunesse am mhm. da koy dox da koy wax day day day day extra extra lool du ko def dara d'accord mais tey est-ce que sénégalais yi aussi tamit xaaruñu waal yi ci benn featuring boo xamante ni tey pour mu wan sénégalais que ni ñi ngi samay rakk lañ mu mhm. njaay ak bambali xëcc leen teg leen ci itam dina am def ak ñoom benn featuring dina am ah di yaa yaa ngi nii ne ne ne manjaay manjaay son bi mu génnee woowu ci Wally mhm. di loolu nga ma wax. waaw waaw. Mhm. xam nga kon kon kon def ñoom ñaar def nañ def nañ benn affaire. Mhm. waa incha allahu rabbi. yeneen yee ngi ñëw. yeneen yee ngi ñëw parce que xam nga manjaay day ñëw con day way. déglu li dégg sama xol la la wax Wally Tek Tek. Waly Tek Tek Waly teg si man Ndiaye lay waxal lii Waly waxu ko ci biir néeg de. Mhm. Waly waxu ko ci ruq. ça c'est tout dit. mais donc lii nii ak li xew nii. Mhm. ak li Waly di sonn ci booy. Mhm. est tey booy. wala gina leen lu tax tey ñuy ñuy wër di di di di yàq deram en fait. waaw waaw waaw est-ce que yàq der la du ma ko tuddee yàq der. parce que parce yi tey bu mu njaay taxawee ni waale jàppale wu ma aussi tamit boo xoolee ñenn ñi dañ naan non waale dafa soxor dafa war a jàppale ay famille kon ça veut dire mën nañu ko tuddee yàq der. Hmm, waaw waaw waaw waaw xam nga ko yàq der mën na nekk mais waale loolu yàqul deram parce que nag waale li muy def nag ñëpp a ngi ciy teg seen bët. Mm-hmm. ñu ci ëpp. am na li nit ñi tegul bët nag moo ëpp. billaay ndeysaan. Hmm. Oh. lépp kenn mënu ko wax. dëgg la foofu noonu lay ñëw ci du ñàkk ni nga jege Wally li muy def ci social ak gestes yi muy def par rapport ak boo xëyee nga dégg ñi ko nga jege di ko seedeel yenn seede yi te yow nga am ay gestes yoo xam ne dund nga ko ak moom. du ma du ma du ma du ma du ma du metti ci man trop nag. Hmm. xam nga lu tax parce que damaa xam ni. Hmm. àdduna ni mel. Mm-hmm. mais man xam naa ni daal ñu bari xam nañ Wally mm-hmm. mais xam naa ni ñu baree bari jege nañ ko mais xamuñu ko mm-hmm. yàlla xam na ko waaw des fois nag di nga dégg wax yoo xam ne dina la xaw a frustré mais après boo toogee xalaatal danga nga naan c'est pas méchant c'est la vie àdduna ni mel. mu mel ni nag album bi am na ci loo xam ni du ñàkk ni neex na la topp ma que maa gis nga koy TikTok. Mm-hmm. Ah, di ko salanse. waaw man nag xam nga. ni moo la ci a neex. waaw man nag xam nga euh, son yi ma ci déglu bari na. Mm-hmm. te TikTok gu ma am na yu ma TikTok yoo xamante ni dugalaguma ma ko. Mm-hmm. mais bi nga jot a dugal nii lan moo la lan moo la improvisé ba nga. Mm, waaw parce que nee na nan wàññi coow li. parce c'est important parce que nag boo xoolee Sénégal. jamono ji bëri na coow de saa yi. billaahi tax xam nga coow bu fekkoon mooy tax ñu avancé. Mm-hmm. heure bii ñun. Mm-hmm. romb nañ fépp. dëgg la mais comme que coow taxul ñu avancé. Mm-hmm. looloo tax man ma jël parti boobu. def ci TikTok. Euh, tey du ñàkk ni aussi tamit euh, fi may jeexalee. muy live li moom maa ko njëkk a wax fii en exclusivité mhm. tey live son bi nga xamante ni dugg naa ay studio léegi déglu ko mhm. nga ci sargal waale mu mel ni yow da nga ñëw tey taxaw défendre waale que ni bu ñuy di wax lee am na ñuy wax lii waaw am nga nag euh, man ku ne xam na ne du ma woykat mhm. mais je suis un artiste man artiste la te xam naa ni à part simb bi may def. am na leneen lu nekk ci man. Mhm. loolu laa bëgg a yee pour Sénégalais yi découvrir ko. Mhm. pour ñu découvrir ko nag. Mhm. ma ci bëgg a woy sama doom. sama rak. sama xarit. muy faramaareel bi. parce que Wally ah, sama doom la. tuddee naa ko doom. sama doom la tuddee naa ko sama rakk la. parce que man ak moom dañoo yàgg. et puis sama xarit la. Hmm? li ma xam ci moom rek. laay bëgg di wax. même bu fekkee ni nit mënta mat cent pour que nag ku ku toog ku wér. xam ni matoon cent pour cent ñun ñëpp nag laa wax. mat yàlla defalu ko kenn yàlla képp dongu kase moo mat. comprendre léegi nag loolu tax ma sargal ko ci. way ko ci. incha allahu rabi bientôt. Sénégalais yi dinañ ko dégg. xam naa nag dina leen xaw a jaaxal. parce que njaay Rambo mi lan lay way. baatam bi mhm. c'est normal mhm. mais nag ma fàttali waat leen man artiste la mhm. tey euh, du ñàkk ni dégg nga ni Bamba DG suba Five euh, est-ce que tey mën nañu xaar Ramdan ak staff tamit ñëw dooleel ko comme ni ngeen ko defee woon ci Thiat Seck waaw yaa ma ko wax léegi mais logique na ah na logique na man moom incha allahu rabbi suba la bon jour vendredi suba moom bu ci xajee man Ndiaye Rambo dinaa dem incha allahu rabbi. mais tamit ñoo gis ni Wally dem sargal cat. waaw loolu de non non non non bul bul bul kii ñoom ñoom ñëpp ñoom ñëpp benn lan. Mhm. kii famille la. Mhm. du benn. ba mhm. léegi. man Ndiaye man Ndiaye yoo Thiat Seck ñoom ñëpp ay frère Wally lan. Thiat Seck. magu Wally Seck la. ñëw na yëgal ko ko. Mm-hmm. ñëw ba ci def naa gis nga vidéo bi. gis la ñëw. Mm-hmm. ne ko ñëwal. Mm-hmm. waal yi ñëwal ko. comprendre nga. loolu geste bu nice la. musique mooy gagné. Bambaali buy joué rakk la. waali bu ko neexee ñëw. bu ko neexee bañ a ñëw yëfu rakkam la. bu ñëwee ñëw na bu ñëwul ñëw na parce que yëfam la. comprendre nga. bu ko jot bi maye waali dina ñëw. mais ku ne xam na ni jamono ji c'est la yàlla affaire yi xaw na xat tuuti. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. mais bu ko jot bi maye. Wally Seck day ñëw foofu tàngal fa parce que nag frère am la. d'accord ma ñëw ci li nga xamante ne nag mooy rëmbe réew mi fan yi dem sax maa ngi gis na def ci benn vidéo di wax. Mm-hmm. muy kaw Adji saar Sonko naka nga jàngatee seen confrontation bi. waaw xam nga nag Adji Sarr mm, day sama mbokk séeréer. waaye ce que Adji Sarr est-ce nekkul sa xel. Hmm? est hmm. nekkul sa xel. si muy sama xel kay sama xel kom man man na ko. Mhm. no man am naa soxna suma soxna moo dàq Adji Sarr. parce que non non non non parce que man euh, wax dëgg yàlla xam naa ne moom taq moom bu desoon ci Adji Sarr rek garaawul damay bàyyi mu sedd quoi. waaw waaw parce que dafa am lu bari lu ma neexul ci jikkoom. Mhm. waaw mhm. parce que Adji Sarr ni muy doxalee du noonu la mel. boo xamee nit. da xam ni du nii muy doxale nii noonu la mel da ngay xam ni. Hmm. kii benn poupée la bu ñuy manipuler. capito hmm. hmm. xam nga mais ma koy ñaanal yàlla yàlla sàmm ko. yàlla gën a raxasaat xel mi. ni muy doxalee neexul la loolu jaaxal na ma ça veut dire dafa ay jikkoom yu la neexul. waaw waaw waaw parce que parce que tamit xam nga mu ngi dugg ci ay détails yoo xamante ni moom dafa war a doon yaay. te xam nga jigéen yàlla da ko fonk. xam nga. lu ko ci mënti dugal bu dee xaalis la. bu dee or la bu dee jamaa la. aji saar moom. Mm-hmm. jigéen. moo mm-hmm. moom or. moo mm-hmm. moom xaalis. ndax ki defar xaalis moom moo ko jur. ki defar or moom moo ko jur. extra extra maanaam jigéen. amul lu ko lu ko mën a jënd ci àdduna. ñu gis ni sax Ousmane Sonko taxaw na vraiment def benn témoignage bu rafet ci moom. yàlla xam mais dafa ñëwaat moom tamit. loolu laa lay expliqué. loolu laa lay su du moom. li Ousmane Sonko wax. noonu la Adji Sarr mer. billahi wallahi mm-hmm. Ousmane Sonko li mu wax mm-hmm. noonu la Adji Sarr mel mm-hmm. mais Adji Sarr sotti bi mu génn melut noonu melut noonu non melut noonu kon na jàpp ne dañ koy influencer pour mu mm, waaw waaw waaw ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy dee ay mbir yoo xamante ni daal wax dëgg yàlla ñi koy dee defuñu ko te àdduna amu solo àdduna amul solo parce que moom bu xoolee décembre daaw bu taxawee ci milliard ni meloon ak décembre bi di ñëw dina xam ne du doon benn. Mhm. instant bi toll na ci. Mhm. jongo mën a macha allah rafet na defe naa faram dina ma baal. Mhm. rafet na jongo mën a allah mais dina xam ni at at ay atam mu ngi yokk. te dina des tuuti bu taxawee ci milliard dina xam ni. xaalis mën na jënd habillement. mais mënul jënd dignité. dëgg la dëgg la mu ngi noonu moo nekkoon sunu invité tey euh, muy Ndiaye Rambo tey nag niñ koy waxee moo nañu fii di house of beauté vraiment fii moom xam naa du ñàkk waa team people 221 idi tànk yi fan yëpp dafa karaas naa du ñàkk dinañ ko indi fii. ah waaw non Ibrahima non Ibrahima. idi. yaa ngi idi. Uh-huh. il faut ñëw fii. vraiment ñu defar leen. ñu defar tànk yi. idi bi kenn xam lu muy. parce que fii. Uh-huh. tànk yi dañ koy defar ba mu mel ni tàngal mant. barke euh, leen ma. non xam naa ni lii nag du ngeen ko dagg. numéro bi. mu ngi nekk 900 double 0. 77 wala 77. waaw 77 la. 900 mhm. double 0. Mhm. après nga def 1 def 3 boo ko boolee mu ñaata. 01. loolu mooy numéro mhm. house of. of <laughs> house of beauté ci Fida. <laughs> voilà mu ngi nekk euh, Nord ci watu terrain basket bi. ku bëgg yu baax boo bëggee am na salon. xale yu jigéen ñi dañuy def ay ongles mooy yooyu ñuy monté te des fois boo ko defee nii kaay bi <laughs> mooy yooyu di jurgaata uh-huh. am na yaatu am na am na am na am na pour xale yi décembre bi mu ngi ñëw xam nga ku bëgg sa doom bég mën nga fi doxantu. Uh-huh. dëgg neexul. Uh-huh. waaw mu ngi noonu moo nekkoon suñu invité tey di Ndiaye Rambo. waaw mais baal ma baal ma doom rek ma gërëm ma gërëm ministre de la culture. parce que danoo daje bërki dem mu def geste bu nice. parce que mhm. dafa taxaw diglu ma attentivement. Mhm. ma waxtaan ak moom luy jege trente minutes. parce que man ba mi bi mag président Macky Sall faloo ba tey maa ngi doog a gis ministre de la culture pour man ministre de la culture musul am Sénégal. Mhm. maa ngi koy doog a xam ci Ablaye Sow. ñu ngi koy siyaare nee na dafa day voyage yi. bu ñëwee dinañu recevoir ñun simbukat yi. parce que man simbukat la je suis fier d'être simbukat. ndéem am na lu ñu ci mën a joyanti après bu ñu toog moom rek. Mhm. di ñaanal Sénégal yàlla def fi jàmm. Mhm. di siyaare Aline Cissé. Mhm. Cissé ngaari ñal meew ak sunu jour yi nga xamante ni ay gaynde lañ mais nag gaynde bu jàppee. daa war a dagg. dee leen xiiru di mat di gajje parce que nag ay gaynde ngeen yàlla na yàlla sàmm. voilà gars mu ngi noonu di leen jox yeneen dig daje ci suñu yeneen émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf. <coughs> I,